maa ngi lay nuyu nga doon jigéen joo xam ne si jigéen ju jàmbaare ba léegi ñoo ngi si bisu jigéen ñi jeexagul 8 mars jeexagul en tant que jigéen tey nooy nooy dundee la sëñ Fallou maa ngi lay ziar di ziar ñuy seetaan sur Leral TV di rafetlu nag sa liggéey dama sama xarit nga sama doomu ndey nga <laughs> mois de mars comme que dañu koo jagleel ne mois jigéen ñi la ñu jël ko rek avec plaisir ah du souhaiter nag ko ni ma ko waxee à chaque fois à tout les mamans bon fête ndax euh, jigéen mooy yaay jigéen mooy lépp mooy kër mooy lépp ndax boo gisee jigéen nee naa li muy représenté si société bi amul kenn ku koy représenté. ndax yaay ak lu metti metti du daw ay responsabilité jigéen lu metti metti du dal ay responsabilité par rapport ak papa tey papa mën naa am ñeenti ñeenti soxna wala mën naa am fase mais ñun yaay yi munuñoo am fa sa takkaat. waaw mais ñun yaay munuñu loolu ñun benn jëkkër rek lañu ñu yàlla jagleel moo tax daal jigéen daal nekk na loo xam te ni macha allah daal ñun ñu ko ndax bu njëkk ba danga nga daan gis soo amee doom bu jigéen dañ naan acam ah, mais léegi ji doom bu jigéen soo ko amee fierté lay nekk si yow ndax jigéen lépp lu mu mën góor mën na ko di wax rek kon à chaque fois li may wax gars yi ñu gën ñoo jox cër xam ni jigéen nekk na loo xam te ne gis nga fan yi violence yi am heure boo xoolee sëñ Fallou rek. Euh, crime yi am yëpp soo xoolee jigéen la dangay gis boo ne incident yi rek automatiquement rek soo xoolee jigéen la violence conjugale yi da nga gis gis violence faite au femmes yi gars yi nañu yërëm jigéen ñi te xam ne ñun ñun dañoo am lu bari lu ñuy représenté ci société bi léegi da gis parfois dañuy neewal doole da ngay am sax ndeysaan borom kër nga gis mu lay malmené ci sa mariage lan moo tax bu jigéen divorcé si biir sëy néegu sëyam mu divorcé jëkkër ji bàyyi ko ak ay doom mais ku jigéen ci moom mooy jël doomam uuf di toppatoo di yóbbu ñuy jàngi bu ñu wàccee mu indi leen toog jox leen ñu lekk jox leen ñu naan te duñu gis papa. parce que yaay mënul abandonné doom yaay mënul abandonné doom wallaahi lazim day gis doom ak lu ko métti métti ci kër àdduna da ngay gis parfois mu jaar fu métti papa day day day da koy dégager. mais yaay moom mooy ñëw takk bu dëgër nekk si si si kiiwu doomam da gis parfois da ngay teel a ñàkk bu góor yaay moom mooy taxaw xam nga soutenir la comme man. mais nga ñàkk sa waajur bu jigéen dese ak sa waajur bu góor métti na si jigéen wala. waaw parce que loolu dundaguma ko mais man mi nga xam te ne dund naa ñàkk waajur bu góor ma nekk xale sama yaay ñun ñëpp dafa njaboot mais ñun ñëpp moo ñu teete soutenir ñu ci lépp. ba tey ñun ñu ngi nii donte mënuñu koo satisfaire lépp mais ñu ngi jéem te gisuñu papa mais lépp jigéen moo mën loolu papa yaay mën naa génn àdduna mën na laa yor mais gis nga du veillé ci yow à cent pour cent kon yaay ni mu koy defee kon nañ gën a jéem a jox cër. Yeah. Please tell me that I can't, that I Please tell me all the bad and the good Fill my head full of every single doubt Please say any negative thoughts I pop off when I hear people say I cannot I get off to the fuck Proving everyone wrong I'll rap it off to the cops And you better back off and get lost I'ma stay loud, stay proud Never running out, never heading out I'm spreading out, call it what I'm out Can't put it down, I'll be getting out You never doubt, not what I'm about I just get loud, if you ain't it now I keep ass out, go another round I won't give up this Cause I know that I want it, know that I'm on it I'll make it, I promise quoi mais jëkkër nag su jotee rek day yomb.